mbokki bitim réew mbokki réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu wér waa di indi sama xalaat ci combat Modou bi passé rek di félicité Modou xarañ Lo ndeysaan di encouragé Eumeu Sène gone Pikine gi di ñaanal Modou Lo ndam li yàlla na ko jik te mu yàgg ci roi bi lool waaw Modou Lo na yàgg ci roi bi ci barke yeneen bi combat bi nag comme ni ko nit ñi gisee rek ñu ci bari man noonu laa ko gisee ah. Modou Lo dafa man ñi fi nekkal nii wax dëgg yàlla Modou Lo di leen a man bon Modou Lo ci boppam li war a nekk ci doomu aadama lépp macha allah yàlla dafa dogal mu ne ci moom xale bi yaru na xale bi am nay teggin xale bi am na fit am na jom kii ku ma waxoon du jël roi des arènes bi man personnellement man du ma ko gëm ndax lii ne ci doomu aadama lépp mi ngi ci moom. pourquoi Balla Gaye taxaw fii ci àdduna di waat nan barki Serigne Saliou du jël du ñam roi Balla yow da ngaa yab Serigne Saliou yow Balla Gaye 2 yow ku yab Serigne Saliou nga yow fexeel ba sa yii nii ngay def nii di signé contrat boo ko dee defate fexeel ba bu ci waata ci siñ Saliou de Serigne Saliou du sa morom Serigne Saliou nitu yàlla la boo ci dee waat na nga waat lu la wuur Modou Lo ngi nii fi mu toll yaa ngi ni toppaat ci ginnaawam pour bëgg a daje ak moom muta la Modou Lo nag ca ca kanam ci lu baax moom la la ñëpp xamee gàcce ngalaama xarañ la